di leen jox seen wàccuwaay comme vous l'avez constaté tout tout à l'heure ñëpp ko donc on était là au siège de Pastef Kër sur la VDN pour euh, poursuivre notre conférence de presse qui était prévue à 16 heures mais à notre grande surprise gendarme yi donc euh, barricadé devant le siège ne kenn du fa def suñu conférence de presse mais n'empêche loolu mënuñu on va poursuivre notre objectif c'est-à-dire nous allons dénoncer ce qui est en train de se passer sur ce dama leen di bàyyi ak euh, nos deux honorables honorable Rama Bodian ak honorable Roxi Ndiaye ñu joxe euh, seen avis ci li nga xam ne moo xew léegi honorable Roxi noo ko gisee. Euh, ñoo ko gisandoo ko gisee rek dañu amoon point de presse boo xam ne ni dañ ko waroon tenir ak bureau politique élargi aux députés ñu woon pour wax ak askanu Sénégal wax ak àdduna li nga xam ne ni moom moo xew ak li nga xam ne nii nan nañ ko teg ki nga xam ne nii moom mooy le leader de Pastef Euh, di le chef de l'opposition di koo xam ne nii tey mun nañu wax ne euh, c'est un leader incontournable dans ce pays euh, ñu gis ne bi ñu demee ba day waaj def point de presse bi gendarme yi ñëw génnee ñu mën nañu dañ ñu dàq génne ñu suñu biir siège alors que parti politique yëpp am na am nañu droit am seen siège bu fekkente ne mu ñu ko ñu da ñëwoon nag daje ngir tenir une réunion la réunion c'est une liberté c'est un droit boo xam ne ni constitution moom moo ñu ko may loolu nag lañ ñu xañ ñu gis ne à chaque fois liberté doomu aadama yi droit doomu aadama yi dañ koy bafoué ci réew mi depuis que ce régime dañuy bafoué droit nga xam ne ni doomu aadama yi am nañ ko ci ci Sénégal surtout nag ñu ngi acharnement bi nga xam dañ koy acharné wu ci les patriotes ak ak leur leader donc mooy toujours li nga xam ne ni moom mooy moom mooy li nga xam moom lañ constaté tey jii muy loo xam ne nag lu ñaaw la parce que Sénégal bu ñu nekk dañ doon wax ne Sénégal c'est un pays démocratique ñëpp xam nañu Sénégal c'est une vitrine démocratique en Afrique actuellement démocratie boobu noonu réer na kenn gisatu ko ñuy dund anarchisme di dund dictature pure et dure xam nañ ne carrément li nga xam ne ñu ngi koy teg le leader de Pastef du dëgg du yoon fekk ko buntu këram tàppaas ko lañ koy tuddee parce que nag koo xam ne nii jullit la bés àjjuma bés boo xam ne ñëpp a ngi xëy di baalante ak mu xëy dem julli ji ñibbisi ñu koy ñu ñu tàppaas ko vraiment unique uniquement ngir téye ko xañ ko li nga xam ne nii moom lañu nekk di ruumandaat booba tey def nañ ko nag ak ay ay opposant mu jàll mais avec le président Ousmane Sonko ñun peuple sénégalais ñun ñooy jug tenir li nga xam ne moom jël li nga xam mooy suñu responsabilité en main te xam ne kenn duñu ko xañ te kenn du ko duñu ko yàqal ñuy xamal peuple sénégalais le parti Pastef benn candidat la am muy le président Ousmane Sonko amuñu plan A amuñu plan B amuñu Sonko sera candidat et il sera le prochain président de République incha allahu rabi charge yi nga xam nag teg nañ ko si moom ñëpp xam nañ ne c'est tellement ridicule bi ñu xam ne ñu ngi koy ñu ngi procureur li mu wax tegu ko fenn dire au président Ousmane Sonko qu'il a volé un téléphone vraiment dara gënu ko doon ay comédie xaw ma lu ñu koy lu ñu koy tuddee président Ousmane Sonko mënuñ nekk mënul nekk impôt domaine nekk fa ans toog si ci Sénégal lépp di dugg ci loxoom di génn place boo xam ne képp ko fa mës a nekk doon nga milliardaire sauf le président Ousmane Sonko mu nekk un digne fils du Sénégal ku digne ko intègre gëm réew mi bëgg réew mi bëgg un changement moom loolu la ko population bi toppee nga xëy ne ko daa sàcc téléphone def naa ne loolu noonu Sénégal yëpp xam nañ ne ay caaxaan la te ay caaxaan képp la ñu nekk ak ay làmbat nañ xam ne rek lenn moo mën a am le président Ousmane Sonko sera c'est quoi le prochain la tomba bi xam nañ ko ku nekk day jël responsable dem rek incha allah rabbi merci honorable Roxi donc nous sommes avec honorable Rama Bodian député de Guédiawaye honorable comme sa collègue ni mu waxee léegi yow nan nga gisee lan nga gisee actuellement li xew euh, je pense que sama collègue bi wax na lépp on peut pas am na yenn yoo xamante ni c'est un manque de respect parce que le président Ousmane Sonko d'abord c'est le chef de l'opposition te bi ñu ko joxoon cëram bu ñu ko joxoon cëram en tant que chef de l' je pense que luy am ni yëpp du am gendarme yi dañuy xamante ni kii le chef de l' dañuy am nu ñu ñu koy traité dañuy am nu ñu waxee ak mais dëkk bi mooy dëkk ba nga xamante ni képp ku nga xamante ne yooyu yaa war a respecter le lu mu tudd parce que les forces de défense et de sécurité c' quoi le rôle c' de faire respecter la loi mais quand les forces de défense et de sécurité violent la loi impunément nga xamante ne ñun on est vraiment mal loti parce que mënuma comprendre nga xamante ne kii c'est le chef de l'opposition nga koy acculé on et la gendarmerie il y a eu deux versions différentes keneen ki que la que la dame là elle a elle a eu que la pour surveiller donc à qui c'est quoi cet état là ba nga xamante ne kii dee wax lee kii wax la le ils sont même pas capables d'être en cohésion dans le propos ma leen di xamal ni le président Ousmane Sonko c'est un digne c'est un homme intègre très digne koo xamante ne en 15 ans de d'impôt et domaine même dërëmu jàmbur bu ko jël te tey bu soxlan portable je pense que il suffit qu'il fasse un claquement de doigts les les militants de PASTEF et les sympathisants de PASTEF et toute la population sénégalaise des gens qui n'ont même pas de carte membre cotisent mobilise des sommes pour donner ça au président Ousmane Sonko donc moom lan lay dem di sàcc un téléphone wóor bu bon la en fait ils ont peur de ce que le fa def moo tax ils ont ils l'ont arrêté ba euh, vraiment moom man genre la moom tey di wax ni le président Ousmane Sonko il est insurrection ak xaw ma mooy insurrection xanaa moom déggul tubaab xanaa déggul tubaab ah la résistance est un droit fondamental chaque sénégalais a le droit de résister te ñun ñi dañuy résister et je l'ai toujours dit un peu partout ñun lenn rek la ñu am mooy la parole et on va utiliser cette parole et on va évangéliser tout le monde on va entrer dans chaque maison dans chaque contrée dinañ fa dugg dinañ fa dugg waxtaan ak les sénégalais musuñu am arme ñoom ñoo am arme ñu rey sénégalais yi ñoom ñoo am prison ñu tij sénégalais yi ñoom ñoo ay liif di dóor nit ñi benn patel bu la jàpp na nga takk bracelet wala nga sol t-shirt Pastef c'est un crime yow automatiquement yow tu es marginalisé on te torture dañ lay malmené di dóor sénégalais yi mais nañu ngir yàlla nañu bàyyi les jeunes sénégalais nous avons le droit d'exiger de revendiquer notre appartenance à PASTEF c'est notre droit le plus absolu et c'est également notre droit le plus absolu de résister te dañ koy résister nag bu fekkante ne loolu la ñuy wax insurrection ñoom ñoo xam ñun on résiste et on va résister de la plus belle des manières en exigeant leurs droits, en faisant savoir à tous les Sénégalais que nous sommes des Sénégalais et qu'un groupuscule de personnes ne va pas nous imposer ñoom lu ñu bëgg mais de quoi ils ont peur il faut vous poser la question ñii ni di bëgg arrêter Ousmane Sonko ñoom ñooy ñan et pourquoi ils éprouvent le besoin de l'arrêter coûte que coûte yan njombee la ñuy bëgg a c'est la, la question que les Sénégalais doivent se poser. Au nom de quoi un groupe de personnes, nous avons notre Sénégalais, nous avons utiliser l'État, nous avons des choses qui ont un espace stabilité. fii fii lañ ñu tere pour pour ñu dem pour ñu dem lu euh, mu tudd pour ñu dem kii suñu meeting bu ñu waroon am à Guédiawaye ils nous l'ont interdit mais le président Ousmane Sonko a montré qu'il était un grand homme et qu'est-ce qu'il a proposé en échange un concert de casserole ba mu ba nga xamante ni tension bi apaisé na qu'est-ce qui s'est passé ces hommes-là qui sont chargés de la sécurité des Sénégalais ont encore créé des problèmes je l'ai dit à l'Assemblée il faut que ñu xoolaat ñan la ñuy recruter pour ñu pour ñu assurer suñu sécurité parce que quelqu'un qui a qui a qui a ki xamante ni dafa am ay problème psychique quelqu'un ba nga xamante ni xamul ni moom dafa prêter serment pour protéger le le peuple kooku il faut que ñu xoolaat kan moo ñu war a assurer suñu sécurité di wax à tous les jeunes sénégalais à toute la population sénégalaise bépp nit bi nga xamante ni yow Sénégal daf la ñor bépp nit toute personne sénégalaise qui est conscient du fait que moom tey bu fekkee day yeewu nekk ci kër newul ci ci plantation yi c'est parce qu'il y des gens qui se sont battus que moom mu libre tey kon nag nous avons ce devoir là à répercuter pour que nos enfants nos petits enfants ku nekk boo juddoo Sénégal doo tiit ngay toog di ragal tey kan moo may jël parce que loolu suñu droit la tenez-vous prêts parce que gis nga ni résistance c'est un droit ne leen fekkee dañ ñu téye nañ ñu téye di leen remercier. alors un petit résumé en français